Thank you. Thank you. daan na ko. mais noo bëree ñëwal ci bëree bi. waaw ah, bëree bi dama indi xeex te man dugg ma pour xeex damaa ñëw pour bëre loolu lan ma yeewee woon. i mbër yëpp ñu bàkkal la yéen mbëru simple man naa xeex wante du ma ko def. Ah. man billaahi xeex rek laay def wante du ma ko def man fi ma yoree. ku mënul ku mënul xeex lan nga man bëre indiwuma lii xeex indiwuma bëre moom indi woon da moom laa doon dese pour daan ko boo ko jàppee mu jeex waaw maa gën a féete xale maa ëpp doole kañ jarul may xeex bi mooy sa ñaata combat bi mooy deuxième combat deuxième victoire mais seen seen bi waa si kaw xaw bari bari kon amul combat nan ma ko jox wala jóob dóore kan? wala ñii noo tuddati bi jóob euh, wala prince wala kan prince na ma may ko da ngeen a bëre woon de. bëre nañu woon. ñangal. na ñëw mu mayaat ko revanche. nga may li muy indi laa indi supporter yi muy indi laa indi moom bari ñu indi. yoof laa indi yoof yor laa indi. mais mais yow champion d'Afrique tey ñu gis mobilisation bi mu ko doy waar. waaw loolu mooy yoon. loolu lépp kenn moo waral. waa Bargny ko waral. maire Bargny bi. wës moo jënd bolok yëpp. samay bolok yëpp kooku ko jënd carré oto yëpp kooku ko fay. billaahi aw fayam waa central bi tamit maa leen ci gërëm parce que may tiset yi am yëpp ba pare tegal ma si xaalis bu bëri. mais Sidi tey ñi na trop. billaahi mais Sidi tey ma li nekk si ma tiit. waaw waa li ngi gërëm ñëpp ñoom laa am. a ah, fay booy fay booy fay amul fayam ñi ma jàppale ñëpp maa leen di fay ñëw moom maa koy indi incha allah maa koy indi. kon dóor dóoraan nga ne. waaw dóor dóoraan laa ne waaw Forza tamit ñëw na sama bés Forza amul fayam. Ami Collé dinaa la woo nga ñëw ñu gën a yaakaar. suba damay ñëw waaw incha allah suba allah.